jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ci wasaare làmb cant ak ngërëm ñeel na leen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk di masawu nag waa Leeral TV di masawu journaliste yëpp euh, képp koo xam ne taskatu xibaar nga rek ñu ngi lay jaale suñu confrère yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci Leeral euh, ku ci mel ni Ousmane nekkoon chauffeur bi ku ci mel ni Yoro nekkoon cadreur bi ku ci mel ni Abou Mamadou. Euh, nga xam ne ni euh, moom moo nekkoon journaliste bi muy suñu ñetti confrères yooyu génn àdduna ci accident bu metti bi am euh, ci tournée économique président Macky Sall bi ñu leen di masaw seeni njaboot di leen ñaanal suñu borom wàcc yërmande seen kaw ñi fa am ay gaañu gaañu aussi suñu borom taxaw leen fëgg seeni bopp bañ delluwaat ci liggéey ba ñuy ndokkeel nag mboolem kuy amateuru làmb ndax semaine bi ñu génn li ko dalee arxames ajuma samedi ba ci dimanche euh, mën naa ne monde làmb yëpp amateur yëpp ñu ngi woon foofee ca Kaolack euh, Kaolack ndàngaan ci drapeau chef de l'état bi nga xam ne moo fa doon am muy vingt et unième édition euh, Kaolack nag ku ko wax wax dëkku làmb ndax le président du CNG Bira Sène foofu la dëkk suñu yaay ndey Fatou Adama Dialli fa la dëkk le grand tembre major Mor Ngom fa la dëkk ak ñeneen ñeneen ni ndaanaan yoo xam ne ci wàllu làmb xam nañu leen euh, ñuy jaajëfal aussi la région de Diourbel bi nga xam ne ren créé na surprise parce que moom moom mooy euh, ñi jël drapeau di chef de l'État euh, mën naa ne ñu ci bari bàyyiwuñu leen woon sax xel Euh, maa ngi doon dégg favori yi ni ko ni ko tege woon ñu ngi doon wax Thiès détenteur du titre moom mooy favori ak Fatick bi nga xam ne miin na ko ak la région de Dakar ak Kaolack mi nga xamante ne nii moom mooy accueillir drapeau du chef de l'État boobu mais gis nañ surprise bi am Kaolack ak Diourbel ñoom ñoo nekkoon euh, ci benn poule Diourbel éliminé ko gis nañ aussi. Euh, Fatick bi nga xam ne ni min na drapeau du chef de l'État éliminé woon Diourbel en en 2011 si je ne me trompe pas foofee ca ca ca ñu demoon en finale Fatick éliminé ko woon ko moom moom moo éliminer Fatick fii ci Kaolack en demi-finale donc finale bi nekkoon digganteem ak le détenteur du titre muy Thiès ñu gis ko si mu éliminer Thiès donc surprise lañu ñu ku wax Diourbel nag di nga wax mbër yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk en 66 kilos mën nañ cee jàpp ku ci mel ni Badara Sène mën nañoo jàpp aussi ku ci mel ni mburook Ndambe en 76 kilos mën nañ cee jàpp ku ci mel ni Ganja Fama en 86 kilos mën nañoo jàpp ku ci mel ni Rajaxe en cent kilos mën nañoo jàpp booy Faye plus de cent kilos maanaam 120 kilos. donc loolu moom moo nekkoon équipe bu région de Diourbel bi ñuy jaajëfal aussi le DTR nekk le directeur technique régional di Etienne Ngom ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni liggéey na ko ànd ceeg waa Diourbel yëpp parce que li may faral di wax rek mbooloo moom mooy doole li l'union fait la force gis nañu ren ni Diourbel mobilisé woo ñoom ñëpp ñu nekk autour de l'essentiel ñoom ñëpp ñu ànd xàccandoo dóorandoo ñu gis mobilisation bi ci côté yëpp euh, mën naa ne managers yi Euh, mbër yi euh, promoteur yi ñëpp képp koo xamante nii rek yaa ngi jurbel te yëngu ci làmb gis nañu liggéey bi nga xam ne nii liggéey nga ko ngir jurbel am drapeau chef de ngir jurbel gañe li nga xam ne nii yàgg na ko topp donc mention spéciale loolu lañ fay wax rek mooy mbooloo moom mooy doole euh, def ngeen ko ànd ngeen xeex ngeen ko liggéey ngeen ko yàlla defal na leen ko yal na leen ci bu ñu dellu siwaatee nag mbokk yi ci biir drapeau chef de l'état boobu euh, jox leen quelques informations yi nga xam ne nii am na fa parce que bu ñu waxee ne Diourbel moom moo ko jël euh, moom moo jël final bi faaw ñu wax deuxième place bi nga xam ne moom mooy Thiès final woon mention spéciale à Thiès aussi parce que détenteur du titre bu final waatee rek euh, dañuy naan objectif bi atteindre nañ ko demoon nañ en finale en 2019 gagné ko ñëwaat nañ en finale en 2021 perte ko donc atteindre nañ objectif bi parce que demaat nañu final euh, troisième place bi aussi c'est la région de Dakar Dakar euh, mën naa ne ñoom gis nañu ak euh, gàllankoor yi ñu am problème yi nga xam ne nii yenn mbër yi jot nañ ko soulever loolu rek mooy mooy li nga xamante ne nii non astafurlah Fatick Fatick moom mooy la troisième place. Euh, Fatick moo jël la troisième place donc ñoom aussi démérité wuñu parce que min nañu drapeau du chef de l'État podium bi bu ñu nee euh, Fatick mu ngi ci podium bi euh, kaw Thiès mu ngi ci podium bi rek dañuy naan ñi doon chroniquer que Thiès ak Fatick ay favori lañ ñooñ daanuwuñu Dakar en quatrième place donc ñoom aussi gis nañ li nga xam ne nii moom la ñu moom la ñu lim ne loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo leen gàllankoor ba ba ba ba ba ñëwuñu compétir dëgg-dëgg ni ñu waroon a compétir euh, gis nañ ko ci mel ni euh, soixante seize u Dakar bi muy aatu euh, gis nañ muy non non non du du du aatu Tony boog Tony Junior mu dénoncé conditions yi nga xam ne nii ñoom en tant que leader lutteur nekkoon nañu ci ba loolu moom moo waral ñu échoué donc en loolu la ci tableau yooyu ñu gis aussi ci individuel yi. plus de cent kilos général Malika moom moo remporté trophée bi ci kaw Libidor bu Thiès en cent kilos euh, ordinateur bu Fatick moom moo ko jël ci kaw Rajaxe bu Diourbel en 86 kilos Dibokor Sañ bu Thiès moo ko jël ci kaw Sox-Sox bu Kaolack en 76 kilos Ngor Ñaax bu Fatick moo ko jël ci kaw ndàmbe bu Diourbel en 66 kilos Aline Badara bu Saint-Louis moo ko jël ci kaw. Euh, Alioune Badara bu saint moo ko jël ci kaw Badara Diouf bu bu Kaffrine donc loolu moom mooy li nga xamante ne nii am na fa euh, ci ay ndam ak ñi finalu mais tey mbokk yi bu ñu dellu si dañuy dénoncer wala dañuy naqarlu euh, traitement bi nga xam ne nii g de lutte traité na ko euh, la presse wala yenn failles yi nga xam ne nii am na ci drapeau du chef de l'État ñu ngi leen di féliciter nag toute l'équipe du CNG ci mën naa ne ci ñi ci gën a suufee ba ña ci ba ca ka ca bopp ba muy Bira Sène suñ Pape Bira ñu ngi leen di ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax a baax parce que objectif bi moo nekkoon ñu tenir drapeau chef de l'État ndax gis nañ li fi jaar ci ay problème mbas meeg yooyu ba waral en 2020 drapeau du chef de l'État amut 2021 man boog li ma jàppe mooy objectif moo nekkoon ñu amal drapeau du chef de l'État te amal nañu ko réussir nañu ko am na ay gagnants am na ay perdants donc loolu mën naa ne bokk na ci objectif yi ñu réussir mais nag dafa am ay failles yoo xamante ne nii euh, séntu wuñu ko ci CNG parce que CNG du kenn nit CNG structure la boo xamante ne nii dafa njaboote ñi bëgg làmb d'abord parce que ay amateur lañu avant ñuy nekk ay membre CNG mbooleem ku nekk ci CNG bi rek amateur nga bëgg nga làmb yàgg nga ko topp ay at suñ papa Bira Sène gis nañu ko avant muy nekk président CNG président CRG la woon avant président CRG amateuru làmb la woon ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci bu ñu jëlee may sa ñing euh, may sa may sa njaay bokk bu bu bu bu fa euh, bu Thiès avant muy nekk CNG président CRG la woon avant muy nekk président CRG euh, foog na naa manager la woon wala amateur la woon en en quelque sorte ñu gis màng aussi le vice président chargé de la lutte sans frappe avant muy nekk pire CNG lutteur en activité la woon bëre ba bàyyi bëre continuer di jàppale làmb nekk promoteur en même temps ba pare doog a intégrer CNG bu ñu leen di limal ka gën a suufee ba ci ki ci gën a nekk mag ñoom ñëpp wala ki ci gën a kawe ñoom ñëpp ay amateur lañ avant ñuy nekk ay ay membre CNG donc am na ci faay yoo xamante nii duñu ko séntu ci ñoom bi ci njëkk mooy ci wàllu animation tey mënuñu ne lutte day promouvoir la culture promouvoir la culture ba noppi bu ñuy def drapeau du chef de l'État di dem ci région du ñu du ñu du ñu du ñu génne seen culture ñoom parce que région yi ni ñu mel ni ñu baree quatorze régions la ñu am mais noonu la ñu amee une diversité culturelle région boo dem am na lu ñu am lu spécial loo xam ne moo leen di différencier ak les autres régions loolu moom on n'en disconvient pas boo demee Casamance Ziguinchor am nañ seen culture boo xam ne doo ko fekk Diourbel boo demee Thiès am nañ seen culture boo xam ne doo ko fekk Tamba boo demee Kédougou am nañ seen culture boo xam ne doo ko fekk Saint-Louis donc bu ñu demee ci région dañu war a promouvoir la culture comme nañu ko defee woon ca Tamba génne culture dëkk bi ba ñépp xam ne fii kat lii moom mooy seen culture ñu gis bi ñu demee Kaolack ku wax Kaolack faw nga wax Ndeye faatu Adama Jali mu nekk woykatu làmb bu mag boo xam ne amul amateur bu ko xamut ci làmb amul mbër mu ko xamul amul promoteur bu ko xamul amul kenn kuy ku bëgg làmb ko xamul Ndeye faatu aadama Dialy mu ciy béy waaram di ci liggéey liggéey bu am solo lu toll di drapeau du chef de l'État ñu koy defee à Kaolack gisuñu Ndeye Fatou Adama Dialy mu bokk ci ñuy woy loolu day nekk loo xamante ne ni ñun du ko du nu neex dunu nu ko rafetlu te bëggoon nañu ko gis ci stade bi ku ci mel ni Mor Ngom aussi nekk tambour major boo xam ne nii ñu bari xam nañu ko ci wàllu làmb mu indi fi ay champion yu baree baree baree bari bokk ci ñi nga xam ne nii boo leen tuddee nit ñi xam leen ci tëgg làmb ñu mën ko lool am lu leen ci yàlla may ñu dëkk Kaolack Kaolack nekk seen fief ñu organiser drapeau di chef de ak Kaolack te gisuñu leen gisuñu leen ñu yëngu fa gisuñu leen ñu def fa dara bu boobaa ñun daf ñuy jaaxal parce que li ñu doon souhaité ci seen CNG mooy bu drapeau di chef de l'État amee ñu war a dem Kaolack li ñu njëkk xalaat ci animation mooy Ndeye Fatou Adama Jali li njëkk xalaat ci wàllu tëgg mooy Mor bu ñu ci boolee ñeneen i woykat baax na bu ñu ci boolee yeneen di tëggkat baax na puisque mënuñoo satisfaire ñëpp mais région ba ñu jëm ñu promouvoir seeni doom promouvoir seen culture xam le ne yéen lii ngeen am lii lañu lii lii la ñuy wane te li gënoon sax li gënoon rafet mooy bu ñu waree dem Kaolack ña nekk Kaolack di ay tëggkatu làmb ñooy tëgg drapeau du chef de l'état ña fa nekk di ay wéykatu làmb ñooy wéy drapeau du chef de l'état bu demee ba dem région boo xam ne loolu amu fa nag ñu koy soog a jéggaani feneen mais loolu yaakaar naa ne ci sama xam-xam bu gàtt loolu moom moo nekkoon la logique beneen bi mooy traitement bi nga xam ne traité nañ ko presse bi ci drapeau du chef de l'état édition 2021 mu nekk lu ñuy naqarlu lu ñuy ñaawlu li ko waral mooy édition yi nga xam ne ñoom ñoo weesu Euh, presse bi dañu doon am oto bu leen fiy jëlee yóbbu leen fi drapo bi di am buñ demee ñu dalal leen ci hôtel ñu fay lekkee di fa naan di fa lijjanti seeni problème bu làmb ja jotee bis bi jël leen yóbbu leen ca làmb ja bu làmb ji jeexee mu delloowaat leen ci hôtel ba noonee la doon demee mais ñu gis euh, ren dañoo notifier ñëpp que nañu teel a approché wu CNG pour ñu accréditer leen ñu mën a dem bi loolu amee dañ leen a teel a yëgal ne oto yi leen di yóbbu danañ leen fekk ca stade Léopold Sédar Senghor jël leen yóbbu leen Kaolack bu jeexee ñu jël leen Kaolack indi leen léegi ñu gis ñoom ñu transporter presse bi yóbbu leen à Kaolack pare nañu ci ñoom condition d'hébergement yi sax baaxul parce tey bu ngeen gisee fi ñu leen dalal da ngeen di de euh, sax daf leen di yéem est-ce que ñii dañu ñëw pour couverture est-ce que ñii dañu ñëw pour couvrir événement bi fi ñu leen dalal ak fi stade bi nekk lu mu gàtt gàtt gàtt war na mat cinq wala six kilomètres ba pare ñoom bi ñuy déparé Léopold Sédar Senghor ils étaient au nombre de vingt six personnes vingt six personnes la ñu woon donc vingt six boo ko divisé par deux. bis bu ci nekk treize personnes moom la yëpp bi ñu àggee benn kër la ñu am boo xam ne fa la ñu dalal presse bi kër googu laa leen di wax digganteem ak stade ba presque war na mat six wala sept kilomètres ci ñi nga xam ne waruñu woon sax sori délégation yi pour mën di amal seen liggéey ni mu waree kër googu ba ñu fa àggee vingt six personnes yi sept chambres lañ fekk ci kër gi ci biir sept chambres yooyu. sembre bu ci nekk le propriétaire dafa ne woon chambre bu ci nekk deux personnes moom lay yor deux fois sept ça fait quatorze personnes moom lañ mën a jël en charge léegi les douze personnes yi nga xam ne ñoom ñooy des ñoom ils sont obligés ñu toog ci biti de treize heures ba seize heures Mamady Diouf bu ITV moo obligé woo ki nga xam ne moom mooy le président de la lutte le vice président euh, chargé de la lutte sans frappe di màng pour mu mën a ñëw lijjanti leen décanter seeni situation le vendredi bi nga xam ne nii moom la drapeau du chef de l'état bi di démarrer officiellement te lu jiitu loolu presse bi ñu ngi leen yóbbu le vendredi à huit heures alors que pesage bi ak tirage bi mu ngi am le mais ñi nga xam ne ñoom ñooy couvrir événement bu toll noonu ci no dafa dafa dafa jaadu ñoom ñu fekkee tirage bi dafa jaadu ñoom ñu fekkee pesage bi parce que loolu ci événement bi la bokk ñoom dañ ko war a couvrir bu fekkee ne am nañ ay mbër yoo xam ne seen poids dafa ëpp ñu disqualifier leen ñu mën a xam mën a am information boobu à temps réel mais waruñ leen ko jottali ñoom ñi war a couvrir événement bi yëgal askan wi li xew waruñ leen di jottali ay information parce que loolu jeudi ba la am alors que ñoom vendredi la ñu dem te édition yi fi jaar ci même jour bi le vendredi ci suba moom la ñuy amal pesage bi moom la ñuy amal tirage bi presse bi taxaw seetaan pare ñiy bind bind ñii ñii ñiy enregistré vidéo enregistré vidéo ñiy def euh, ci seen rajo def ci seen rajo mais ren tel n'est mu nekk faay boo xamante ni am na wax naa leen condition d'hébergement bi aussi baaxul parce que imaginez presse bi nga xam ne dafa war di baagante parce que liggéey moo ko fa yóbbu dafa war di baagante entre les délégations bu ñu demee Kaolack jëli seen délégation xool nañu toogee xool mbër yi def la même chose à Diourbel def la même chose à Thiès def la même chose à Dakar ainsi de suite mais loolu bu ñu leen dalalee fa nga xam ne c'est à cinq kilomètres de l'estade ba noppi amuñu lu leen di transporter ñuy jóge foofu di ñëw di def ci seen liggéey mais ils sont obligés ñu toog foofu ba heure u stade jot ñu wut li leen yóbbu stade finalement am Ndiaga Ndiaye la ñu mujjee am Maysa Ndiaye moom moo ko mujjee am pour mu mën di leen jëlee foofu di leen yóbbu stade bu jeexee ñu indiwaat leen mais loolu dañ ko waroon a prévoir dès le début ba pare loger leen foo xamante ni danañ jege délégation bi danañ jege stade bi danañ mën di dem di baagante ci biir délégation bi di dem fa CNG loger di dem fii délégation yi loger fa mbër yi loger buy ko defee ñu mën lépp loo xam ne nii lu tukkee ci événement bi lañu mën ko fësal mën ko siiwal tey atu woon presse bi nga xam ne ñu ngi woon à Kaolack au delà de la lutte ñu mën a génn def ay documentaire ci culture Kaolack la xew Kaolack ak leneen ak leneen ak leneen mais mënuñu ko parce que conditions yi nga xam ne ci lañ leen loger conditions yi baaxul mënuñu déplacer wu mais bu ñu leen loger woon ci biir ville bi ci wetu stade bi ci wetu délégation yi bu boobaa danañ mën di génn di def seen liggéey tranquillement mais ña fa demoon ña ñu logeel ca kër googu vingt six journa euh, journalistes yi nga xam ne wala vingt six euh, vingt six personnes yi nga xam ne moom la CNG jël en charge jëlee leen ñaari bis ca kër googu lañ leen logeel finalement. ci lañ soog a jël yeneen douze personnes yi doog leen a lijjanti xool nan la ñuy def douze personnes yi nga xam ne nii ñoom ñoo desoon propriétaire u kër gi moo mujjee ñëw euh, fekk boobu woo nañu euh, màng ba mu ñëw ak may sa Ndiaye ñoom ñëw pour décanter la situation propriétaire kër gi mujjee ñëw ne leen am na yeneen ñetti chambre yoo xam ne nii am na ko mën na leen koo joxe comme li mu leen joxe yeneen chambre yi léegi ay mat la lañ fa waroon a yóbbu pour loger fa ñeneen ñi des mais ba biig mat la ñëw fa. ña fa nekkoon dañoo obligé ñoom bu ñu jógee stade dañuy ñëw xat-xatloo ci yeneen néeg yi parce que néeg bi nga xam day def deux personnes benn lal la pour deux personnes mais dañuy obligé def ko trois personnes parce que yeneen néeg yi nga xam ne dañu leen faa dalal moom la ñu mujjee jël mat la amut amuñu mat la ba ci am na ci ñoo xamante ne nii ci canapé yi nekk ci couloir yi ci lañ mujjee di banku donc mu nekk traitement boo xam ne nii c'est un traitement inhumain vraiment boo gisee conditions yi sa yaram dafay daw ci koo xamante ni dafa dem pour couvrir événement bu toll noonu événement boo xam ne fête la war a nekk ci milieu làmb événement boobu képp kuy mbër sa fête la képp kuy amateur sa la képp kuy tambour major sa fête la képp koo xam ne ni woykatu làmb la sa fête la képp koo xam ne yaa ngi gravité au autour de la lutte sa fête la fête boobu bu jotee ñépp ci war a gis seen bopp fête la boo xam ne région yëpp ci war a gis seen bopp ñetti fan yooyu communion la parce que région yi mën naa ne drapeau chef de l'état ba drapeau chef de l'état la ñuy dajaloo noonu la ñuy gisantee noonu mbër yi aussi la même chose amateurs yi aussi la même chose trois jours yoo xam ne war nañ cee fësal lépp luy culture ci région boobu lépp luy aada ak cosaan ci région boobu ñu bañ a limité wu uniquement ci bëre donc loolu bokk na ci li nga xam ne ni ñu ngi ciy séentu seen édition 2021 bi jàll na mais ñu ngi leen ciy séentu ci édition 2022 bi ñu bàyyi si xel ci wàllu nourriture bi aussi dañ leen waroon a loger leen mais finalement dañu obligé journaliste bu nekk ñu jox la quinze 15000 francs pour 3 jours 5 5000 francs par jour lan la mën 5000 francs par jour ci ki nga xam ne nii dafa dem couverture ci benn dëkk am na ñoo xam ne c'est la première fois ñu dem defi drapeau chef de l'État yenn conditions yi xamuñu ko. boo jógee foofu de cinq kilomètres nga war a ñëw ci ville bi lekk si naan si doog a delluwaat Jakarta moo lay transporter ti pay mille deux cent wala mille francs pour mën a def aller retour bi mais cinq mille francs boobu noonu boo paasee nga ñëw añ si delluwaat lakk nga mille deux cent cinq mille bi ñaata moo ci des trois mille huit cent francs lekk gi cinq mille francs par jour ce qui est anormal bokk ci li nga xamante ni lu ñuy ñaawlu lu ñuy naqaru la traitement presse bi édition 2021 bii nii CNG bu yeboo mu xoolaat ko bu baax parce que nag ñun ay collaborateurs CNG lañu ñun ay organes la ñu yor ba pare organes yu ci bëri lutte la ñuy def 100 pour cent 100 pour cent lutte la ñuy def donc fépp foo xam ne ni euh, CNG pikiiroo na fa rek dama naan ñoom naan nañ fa ay doom. parce que ñu ngi seen wet de de euh, de chaque jour ñu ngi seen wet donc am na ci xeetu traitement boo xamante nii CNG waru ko traité journalistes yi reporters yi nga xam ne ñoom ñoo wàccoon sur les lieux pour mën a couvrir drapeau chef de l'État boobu parce que dañoo war a liggéey ci seen teyu bàkkan donc loolu bokk na ci conditions yi nga xamante ne nii waxoon nañu ne dinañu ko dénoncer ba ñu xam ne édition bi am na ay manquements yu baree baree baree baree bare nag wala danañ leen ko reprocher sax mais duñ leen ci duñ leen ci ŋàññi li tax duñ leen ci ŋàññi mooy euh, mën naa ne expérience u équipe bi la c'est la première fois équipe bi euh, diriger euh, drapeau chef de l'État bi certes am na ci ñoo xam ne nii min nañ organisation bi yàgg nañu ci ak ak ñu baree bari yoo xam ne yàgg nañ ci mais équipe bu CNG bi c'est la première fois ñu organiser drapeau du chef de l'État donc am na ci loo xam ne nii danañ leen ko nangul mais nag dañu leen di ñaax di leen yokk am nañu xel sax mais ñu bañ a fàtte di bàyyi xel liggéey bi li nga xamante ne nii lu ci mënul ñàkk la parce que délégation yi jóge ci région yi mu nekk ay délégation CRG ñoom ñu indi seeni équipe niñ traitement bi ñu leen traité traitement bu mel noonu la ñu war a traité la presse parce que ay collaborateur directu CNG la ni ñu traité mën naa ne quinze régions ñoom ñoo demoon drapeau du chef de l'État quinze régions quatorze régions yi nga xam ne nii xam nañ leen administrativement ak benn région bi nga xam ne c'est la presse ñoom aussi dañ leen waroon a traité comme les autres délégations donc loolu bokk na ci li nga xam ne waxoon nañu ne dinañ ko naqarlu le cas euh, de Ndeye Fatou Adama Diallo suñu yaay euh, Mor Ngom nga xam ne ay waa Kaolack lañu gisuñ leen ci drapeau du chef de l'État interrogation la képp koo xamante ni amateur nga mais condition presse bi aussi interrogation la pour képp koo xamante ne nii yaa ngi yëngu ci millier bi di yëngu ci ci ci média cant ngërëm ñel na leen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaanal équipe bi prochainement yal na leen yàlla dimbale ba lépp loo xam ne ay manquement la pour cette édition suñ borom dindi ko ba ñu mën a am une satisfaction total ci organisation bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal en 2022 donc euh, merci beaucoup encore une fois ñuy féliciter suñu waa dëkk waa Diourbel Père Etienne Ngom merci beaucoup mention spéciale euh, moom mooy le directeur technique régional ñu leen di jaajëfal équipe bi yëpp suñ papa mbay jaw mi nga xam ne nii moom mooy le président dinañ dellu siwaat ci seen CRG bu jurbeel ana naka la def ba mën a réussir pour remporter drapeau du chef de l'État édition 2021 mbokk yi li lañ leen indi loon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ba ëllëg incha allah ci yeneen i xew-xewu làmb jërë ngeen jëf